secrétaire bu BCG waaye itam nekkoon ministre ñu ngi lay nuyu di la dalal suñu plateau. am mbégte kon am ko ci plateau bi di nuyu également Ndeye Dimet Ndaw ak Fatimata Diop ñoom la ñu nar a àndal ci waxtaan bi door incha allah léegi léegi. ñu dooree waxtaan wi ak dialogue national bi ak li nga xam ne mooy moom bloqué instant bi euh, discussion bi mu di euh, cumul de fonction yi est-ce que mën nañu xam lan mooy sa position par rapport à ça. wax que man bokkuma ci dialogue bi. Mhm. donc euh, li ma ci xam mooy lu may jàng ci journaux yi. Mhm. parce que malheureusement amul ay communiqué amul ay point de presse pour wax lan lañ fa def lan lañ fa deful. Mhm. donc xaw ma exactement ndax ñu ngi wax yëfu cumul de mandat am déet. Mhm. cumul de fonction cumul de fonction. Ah. cumul de fonction man je pense que mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ko bañ. cumule de fonction mais mhm. cumul de mandat kooku ça se discute ça se discute. Mhm. mandat ak fonction du benn. c'est c'est clair que boo amee mandat yaa ngi assumer benn fonction. mais par exemple Sénégal nekk député nekk maire man dama yaakaar ne lu war la. lu mun a nekk la. Mm-hmm. parce que dañuy dem ba nekk ministre nekk maire donc euh, euh, je je pense que nekk député nekk maire kooku c'est quelque chose de consevable nekk njiitu réew ak njiitu parti. Euh, nekk njiitu réew ak kooku c'est un vieux débat débat bu yàgg la. Mm-hmm. je pense que njiitu réew warul nekk njiitu parti. je pense que bu njiitu réew buñ ko falee. su fekkente ne moom moo jiite parti dafa war a euh, bàyyi fonction boobu donc il faut pas ñu généraliser affaire bi. Mhm. il faut ñu wax carrément njiitu réew njiitu parti mais pas cumul de de fonction. Euh, parce que njiitu réew njiitu parti est-ce que véritablement benn fonction la. Mm. benn activité la benn position la mais du vraiment du benn fonction. d'accord. Lady Met mais je pense que effectivement njiitu réew warul nekk njiitu parti ci Sénégal. d'accord waaw. Khady mhm. ma lay nuyu bu baax di nuyu ñi seetaan Fatima ma lay nuyu di nuyu tamit suñu gan monsieur le ministre Jean Paul Diaz am loolu mbégte alors euh, monsieur le ministre ñu ngi koy wax léegi ci dialogue bi waxtaan wi dafa avancé ñu ngi waxtaanee mbiru président de la république warta nekk njiit réew ba pare nekk chef de parti politique mhm. mu nekk débat boo xamante ni du tey lañu ko mës a waxtaanee. est-ce que loolu tey prouvé wul ni que ni ñun vraiment politique Sénégal surtout débat bi euh, c'est l'éternel recommencement. mais non bu leen di wax politique Sénégal nee leen ñi yore nguur gi fii ci Sénégal ñooñu ñooy ñooñu ñooy freiner Sénégal ñooñu ñooy tardel Sénégal waa opposition mosuñu tardel Sénégal. mais le problème mooy ñi nekkoon ci opposition bi. am na combat yoo xam dañ koy mëne mais bu ñu egsee ci nguur gi leneen lañuy waxee. kooku dëgg la mais loolu loolu rafetul. parce que loolu mooy nga défendre benn cause nga nekk situation boo xamee mën nga faj soxla yi nga nga nga retombé ci li nga doon li nga doon li nga doon euh, accusé kooku du yoon. Mm-hmm. je pense que du yoon mais il faut que mu mus a arrêté. mais kañ kañ lay arrêté parce que bi yàgg nañ ko posé même moo ko xam naa. dinañ ci yàgg nañ ko posé yàgg nañ ko posé. voilà c'est vrai yàgg nañ ko posé. mais je pense qu'il est temps léegi comme dialogue bi mu ngi am. na na waa waa dialogue bi retenir benn benn xawma ma ban benn décision boo xamee ñëpp a koy signé signé que njiitu réew du nekk du nekk njiitu parti du nekk njiitu réew wala njiitu réew du nekk njiitu parti boo jëlee États-Unis par exemple ñi fay jiitee du ñu nekk jamais les les secrétaires généraux ou les présidents de leur parti ñeneen ñoo koy nekk et en général ñooñu du ñu occuper sax ay fonctions officielles ki jiitee parti démocrate wala parti républicain doo ko faral dégg mu nekk candidat pour nekk président. d'accord c'est vrai que foofu candidat bi dañ koy xëccoo. Mhm. n'est-ce pas dañ koy xëccoo dañ koy compétir pour nekk ko mais kooku kii jiite kii doo ko jokk ci gis. du loolu rek ndaxte am na tamit yeneen poñ doon waxtaanee yoo xamante ni déggoo amu ci bokk na ci bulletin unique bi nga xamante ne ni président Macky Sall bi muy ut nguur taxawoon na wax ni vraiment pour régler yenn questions électorales yi dafa baax ñu maintenir le bulletin unique te tey ji ñoom majorité présidentielle bi ñoom ñoo bañ euh, bulletin unique bi tijjee ci dialogue bi. mais leen ko fii wala ngeen ko ci palais defal leen ko émission ngeen dem ci palais ndax man Jean Paul Dias man bu ma waxoon loolu ñu egg fii dama koy dama koy respecté. mais yow yaa ak président Macky Sall yéen a far nest pas. waaw mais on ne n'est pas mariés. justement <laughs> voilà donc am na yoo xam ne wax na ko bi mu koy wax tàgguwuma laajuma wala sax bi mu koy wax ba pare ñëw ma ne wax naa lii. Mm-hmm. mais sa gis-gis ci ci noonu mu doxalee. ci suma gis-gis loolu du yoon su fekkente.